Gambians. Uh, I want to commend them, thank them for their response to our call. I also want to thank the Gambia government for their commitment by sending uh, people that are part of us since uh, uh, uh October 30th. We have about five sittings intensive discussion, eh, consultation and dialogue until we reach the agreement which is going to be read today. Super Islamic Council is concerned about the peace in this country. When we heard about the demonstration, although it's peaceful demonstration, uh, what uh, worried was, us was uh, when they said nationwide was too big for us, and also some negative comments that we, used to hear from uh, some individuals. We see that although demonstration is solution, but there are other, means through which we can solve the problem. That is dialogue and consultation. Dialogue and consultation, that is uh, one of the teaching of Islam. وَأَمْرُهُمْ Their affairs are determined by consultation. This is what the Almighty Allah said. That's why we see that we engage this uh, group, discuss with them, until we reach conclusion. And we also engage the government. We thank their uh, representative who were uh, he, uh, working with us quite uh, the whole day. Sometimes we spend the whole day here. And they also, the commitment and uh, openness and ready to uh, understand each other Alhamdulillah, we reached a conclusion that will be read, inshallah, today. So I thank you very much. I thank uh, media for responding to our invitation uh, to come and cover this event. I thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yo, abaraka baka Sheikh Isa. Uh, min diya mutawalem isa fode dabo supi sami kansula ñaton koti sawin bena pis fana la fenko ñin ila lida fana miñanta ala kontondiro fana itandi la banko mole min kete al hasan jawara al hasan diallo uh, bare kasite je ala barka baka ena ay ala Uh, thank you very much. Uh, media presence, uh, Supreme Islamic Council, Coalition of Progressive Gambians, uh, representatives from the government of the Gambia. This ceremony is important and significant for our national development. As today, November both the government of the Gambia and Coalition of Progressive Gambians have reached a common ground to use dialogue and look into demands advanced by the pressure group. The Peace Network, which is a research and educational institute, focused on dispute resolution, peace and security, was very active and instrumental in trying to ensure that appropriate dispute resolution mechanisms are used to address these uh, conflict. We encourage both government of the Gambia and coalition of progressive Gambians to actually honor and respect the agreements signed here. All sides must know that the most appropriate methods to resolve conflict is through constructive communication. We therefore thank you all for your cooperation and welcome. Thank you. Uh, abaraka baka jello jeri sayin uh, coalition la mo min keta nyaton koti sidi cham wo fana sina ala kontano fana yitandi nyimbengo la bandulato insha allahu wo kacamin kete kabirin octobre fo bitema insha allah falyatafaddal mashkuran majuran auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ah, asalaamaaleykum mbokk yi fi teewe fii maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur sa santa di nuyu média bi di nuyu askan bi fi toog di nuyu Supreme Islamic Council ah, njiit yi fi toog di nuyu security yi di nuyu security yi di nuyu ah, kilifa yi fi toog yëpp ci ak suma naataango yi nga xam ne ñoom laa àndal leereewu leen mbir ne depuis julaay benn tey ñun ñëpp ñu ngi jógoon xam naa nag ñu bare suñ déggee protest rek dañoo foog ne dañoo jóg pour taal dëkk bi wala yàq dëkk bi waaye nag suñu yéenee rek mooy woon dëkk bi tegu on the right track waaw nekkoon ci jaama eh, di rafetlu yéen media bi nga xam ne yéen ñu ñëw uyu fii nii di leen di gërëm parce que depuis boobu ba léegi yéen ñu toppa eh, di ñu kool guddi di ñu kool bëccëg te yéen a ngi génnee xibaar yi comme ni nga xam ne noonu la war a tëddee bon nag euh, ñu leen di sant bu baax ñun nag coalition of progressive Gambien ñun ay presse groupe lañ dañ gis ne euh, na réew bi tëddee woon dañ gis ne loolu moo newutoon moo tax ñu ñëw taxaw pour gis ne euh, di lépp dinañ mun a nekk ci ci comme niñ ko buggee waaye lépp ci jàmm lañ ko tegee parce que dañ ne peaceful protest moom lañ doon di woote. waaye nag ci ndigali euh, Supreme Islamic Council kilifa yi muy président bi ak euh, security bi yàgg nañ ñoo engage tey mooy juróomi yoon léegi-léegi dañ fi ne nekka bëccëg ba guddi yëpp pour waxtaan jàmma te jàmma moo ñu tax a jóg so ñu d'accord ne lépp li nga xam ne téye woon nañ ko pour génn peacefully ah ñu gis ne waxtaan nañ ko tëral ko ci li nga xam ne am na dimension yoo xam ne moom lañ leen tegaloon euh, suñ demande si gars yi gis nañ ne nañ ko nguur gi dina ci jóg jël ci jéego bon nag moo tax ñu prospo nangum ko ba ca kanam lii mooy woon kàddu ji yëpp pour euh, yéen ñëpp mbooloo bi ak suñ ñi ñoo seetaan ci jamono bu ñu nekka ni mbokki Gambien si ne coalition of progressive Gambien man si Sidi Thiam di seen chairman bi euh, maa taxaw fii ci turi coalition of progressive Gambien pour leeral jokkoo bi nga xam ne moo nekkoon suñu diggante ak kilifay sécurité bi ak wàllu nguur gi ak Supreme Islamic Council ñoom nag jël nañ ci jéego yu rafet ñu ngi leen di gërëm leen di santa euh, ci jéego yi nga xam ne lañ ci jël waaye nag doon nag nekk na loo xam ne lu xaw a léet la woon waroon naa nekk lu gaaw waaw parce que bu ñu commencé jóg ak léegi yàgg na su nekkoon ñeneen la waroon nañ ci jël jéego yu yàgga parce que novembre 11 dafa mel ni comme gannaaw ëllëg rek la so ñun yàggoon nañ leen a engage njiit gi ah, léeb gi yëpp ah, waroon naa ñàkkaa am waaye nag ñu ngi leen di gërëm benn tey parce que dara leetut ñu ngi leen di gërëm benn tey leen di santa foofu laa ah, daanale suma kaddu jërëjëf jëf jërëjëf Thiam waaw di nga wax ne daal xawoon nañu leet waaye bés lu nekk daal ak bésam Euh, loolu moo tax naat seen bés tam tey la suñ suñu bés tam bés bi leen oo kon su ko defee nag yàlla xam li tax mu doon noonu mu a nekk nag bu gaawoon lu ñu amoon tey duñ ko am waaye lu ñu amee tey bés bés ni ki tey la war a amee nag kon jërëjën jëf ci sa waxtaan bu rafet bi nag ñu ootee tamit Ibrahim Sankare ci information mu ñëw ñu joxe tamit kàddu nguur gi incha allah fa lee tafaddal mashkuran Um, good afternoon, fellow Gambians and those living in the Gambia and also Gambians abroad. Um, we have finally come to an agreement between the Coalition of Progressive Gambians and the Government of the Gambia. Uh, I am representing the Ministry of Information. Uh, on behalf of my Minister of Information and the Permanent Secretary, um, I hereby um, inform or reiterate to the journalists and the press that please, you, people are very, very important in this issue. So I hope you will continue your good work by disseminating the facts to the Gambians and all those concerned. Thank you very much. Shukran, Mr. Sankare. Saimba falako liro futata tomoto. Diamo minkata nyilungol beti. Ayamune fudu. muneɓe je laftamol ɓe simin moy mbena na sectri kumanlal min keta demba diallo ayana ko moñi tandi duniya bela e saala moy inchallah ga duwa la kan askeno kayroti gambiya e falyatafaddal mashkoura bismillah alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in um, there are, uh, the high table the press and all uh, government officials who are who present here in this afternoon i am hereby reading the joint statement on planned November 11 peaceful demonstration. Uh, the Gambia Supreme Islamic Council, as a major stakeholder in the maintenance of national peace and stability, has for fifth occasion engaged the coalition of progressive Gambians and the government of the Gambia to dialogue on demands advanced by the pressure group. This discussion were, were held at the Supreme Islamic Council headquarters. Coalition of Progressive Gambians. And they have sworn I think I, I've missed your question because I was asking, the reasonable things are forced to open the door so that they can hear us first before we go to the streets. The second thing is for us to prioritize what is possible now and the medium, the long term. So looking at that, cost of living has been prioritized by us and to address the corruption because the Audit General has already did their job. The only thing that is remaining is enforcement or implementation. So those are the reasonable areas we Last question. Last question. Sorry? Let him answer his question. Okay, come, come, please. I'm up. Yes, I'm up. the COVID-19 the world almost every country's economy. We've also seen the arrival of the, the arrival of COVID-19 have done this. The Gambian people are accepting this. Is your group not aware of what economic crisis is? Why is your group not considering this but every country by the, the, and also the Ukraine's war that has caused even young nations to go on their knees crying that the economy is really affected? That caused a dramatical rise of uh, Is your group not aware of Are you members of group or just want to be members of group? Not overridden by politicians, overridden by any other group to press on the document that this is what we want. When you have just used a slim line to reject your proposal of addressing what is believed to be a cost war. Thank you for your politi political um, question. That's a political question of access, different from what we are fighting. We believe as a group, governments are elected by the people And before you elect them, those people, they already know the challenges that country is facing or those people are facing. They promise to address or bring solutions to those challenges. And therefore, the world cannot be blamed for our own problem when our leaders to promise that they are going to bring solutions to our problem. The problems are already there before they come to office. They campaigned and then promised citizens that they are going to find solutions to those, to those problems. So because of their commitments to bringing solutions is why this group is holding them accountable, but not in political. Okay, thank you. Uh, DPS is just going to make a short statement, please. I am Jibril Lo, uh, Deputy Permanent Secretary Technical, uh, Ministry of Interior. As you uh, all know, the Ministry of Interior is in charge of the internal security of, this country. And I will be giving a statement on behalf of the Honorable Minister uh, of Interior and the Office of the Inspector General of Police. Uh, the general public is hereby assured that the security will continue to do its optimum best to maintain peace and tranquility of our motherland. Also, the general public is hereby urged to desist against any acts that would affect the general welfare of the people who would be, uh, who would be out and about doing their daily transaction. I thank you all for your attention. yo sayin sayin diyamo mbalo ndila jande abuka bannole niye kuma do sambanan ñinin karo fan amba komale sambelo la jane fo wati koten alama kayre jiidi eh, ala baraka bake uh, albe la nala ala baraka wala ihtaji la